ca déwén sa ba ñu ñëw mat na juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk ñoo doon ñëw ci ajja fekk ñoom tuub nañ daaw ba ren te mu gisewuñu ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca déwén sa di atum fukkeel maag ñett nga xam ne ca la gàddaay ci xaw ginnaaw ba ca lañ ñëw lu gudd la xam ne dama koy gàttal rek biñ ñëwee fekk yónnee nañ ci yónnente ba leeral ko ne ko danañ ñëw ak mbooloo mbooloo mi ni mu toll ak ñi dugg ci lislaam ak lépp xamal ko itam dañoo bëgg bu ñëwee waxtaan yow ci nga ñëw Madina ndax daal nun néex bokk na ci lu naqari nga nekk ci biir Madina Makka ñu lay sonal ak di la tumurankeel ak di la wax lu kenn mënta dégg lu nekk fee ci suñu jàmm la daal neexul dañoo bëgg daal nga ñëw Madina yénte bi jokkalante ak ñoom wax leen ne leen léegi nañ taxe ca Minan ca jamra jamra bu njëkk ba xam nga jamra yi ñetti bërëb la yoo xam ni dañoo tegaloo jamra bu njëkk ba foofu lañ jox na ne leen nañ ko def ci guddi itam boole ci waxtu wañ koy def mooy nañ def na def xaaju guddi rek ndax yonte bu ma saa di waxtaanu ñu mel noonu lu bëgg waa màkk dégg ko ndax buñ ko déggee faw ñu yàq ndaje yi moo tax mu waxtaan ak ñoom ki nekk loolu mooy ki ñuy wax Kaabu ibnu Malik Kaabu ibnu Malik moo ko nekk moo ne maam moo ne moom nee na keroog ñun àndal te te nekkuñ ay jullit ñoom xamuñ ci dara nee na ñu ànd ak ñoom ñëw Makka ba aj li def aj gi daa aj ba noppi ba bañ ajee maanaam bi su Tabaski ba ca suba sa ginnaaw suba sa ca guddi ga nee na ci lañ tëdd ba xaaju guddi nu yeetante dem daje jeeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ba ñuy dem booba dañ doon dox ndànk par kenn kenn àndandoo wuñ di làqutu nee na booba motoon nañ juróom-ñaar fukki góor ñi ak ñaari jigéen yoo xam ne kenn ki mooy Nasiba bintu Kaab ak Asma bintu Amru nee na bañ nee ba ca xurwa fañ doon daje ba toog nes tuur yonente bi ñëw ànd ak bàyyam ndaw bi ñëw Abbas booba Abbas tuubagut waaye bul fàtte ne waa Banu Haasim Abu Talib da leen digaloon ngeen di fexe ba di ko aar moom Seydina Muhammad waan donte tuub moom abbas teewut ci loolu la nekkoon mooy di aar Seydina Muhammad bëggutoon bàyyi mu génn dem Madina dara di ko fa dal moo tax mu ànd ak moom bi mu ànd ak Seydina Muhammad ñëw ci guddi gi bi mu ñëwee abbas moo njëkk a jël kàddu ci ndaje bi ne leen yéen waa Madina waa maasar Xasraj la leen wax mooy waa yéen ñi fa dëkk rek ci misaal ndax Madina ginnaaw yonente ba lañ ko tàmbalee tudde Madina mu ne leen xam leen bu baax li ngeen nar a def mooy kii suñ mbokka mi ngoon ci dëkk bi dëkk bépp ko noonu te mënuñoo mësuñoo mën a agsi ci kawam ngir noo ko doon aar léegi nag su ngeen ko waxee moom ba mu génn dëkk bi dem Madina ngeen dellu ginnaaw ginnaaw ba nangu leen koo aar bàyyi kooki noonu bañ faat ko lu leen ci dal xam ngeen yéen ko maanaam waa nañ ko teg seen bopp ngeen xam ne yéen ko teg seen bopp waaw li ngeen nar a def daal lu rëy la seetaat leen ko bi waxee ba àggal kenn ci waa Madina temps bu nee na ñu ne ko yow li nga wax dégg nañ ko léegi yonte bi ci moom na wax moom lu mu wax rek doon tànn yonte bi ne leen man de maa ngi fas yéene te maa ngi fas yéene jaayanteeg yéen ci juróomi mbir ñu ne ko yow yum doon mu ne ala sami wa taati fi nasaati wal kafal dégg ndigal bàyyi tere maanaam maanaam loo dégg ci man da nga nga daal di koy jëf bu xalaat loolu laay loolu laay jaayante yéen moo xam dalaa fekk ci tayal wala mu fekk la ci cawat foo déggee ndigal rek daal di taw jëf bul bul xaar ñu ne ko ndongu nan mu teg ci ala nafaqati fil usri wal yusri maanaam saa yu ma la laajee sa alalit nga indi moo xam dalaa fekk ci waxtu jàppandi wala waxtu ñàkk jàppandi jafe-jafe ñu ne ko ndongu nan wax leen amri bil ma bil maarufi wa nahyi anil munkar ak digle di digle lu baax ngeen sax ci di digle lu baax mooy di tasaare lislaam ak di tere lu bon fu ngeen ko fekk ñu ne ko nangu nan ba tey wa ala an taqumu fillahi laa taaxudukum fillahi lawmatullahi masalan ak it ngeen sax fi yàlla mooy li yàlla bëgg te bañ cee faale ku leen di yedd mbaa ku leen di doyadal mbaa ku leen toroxal ñu ne ko nangu nañ juróomeel bi mooy ala an tansuruni maanaam ngeen jàppale ma aar ma maanaam xeex ngir man bu ma dikkee Madina li ngeen ni ngeen di aare seenu njabootu bopp ak seen bopp ngeen di ngeen aare mu noonu ñu ne ko ba tey nangu nañ nangu nañ loolu lépp ne ko de wax nañ ne sax ka jëloon kàddu mooy albara ibnu maarur moo jël kàddu ne ko duñ nañ ci yàlla mi la yónni nga dem yónnanteem danañu la aar lu nu raw ni ñuy aaree suñu bopp boo fa ñëwee te itam nun arab yëpp xam nañu nit a xeex lañ yoo xam ni dañ ko doone suñu maam kenn ñëwul bu soo yàlla boo ñëwee daal moom danu la aar noo xam ni da nga am kaaraange gu raw nun gi ñu am ci suñu bopp ni gi gi ñuy gi ñuy defal suñu bopp nekk noonu fi loolu am na kenn ci waa ansaar yi ku ko laaj daan laaj ne ko am na loo xam ni bëgg naa la koo laaj mooy nun kat Madina danoo dëkk ak yahood yi te boo fa ñëwee moom su digg ak ñoom dañ koy daal dog ndax yow buñ la xasee fat suñ digg ak Makka ak Madina yeneen giir yëpp dog na ko léegi nag li nu jaxal mooy boo demee ba am doole ndax da ngay ñibbiwaat Makka bàyyi nu fa noo ñooñee ñu dogaloon suñu mbokk yi nga xam ne xasoon nañoo dogoog ñoom ba noppi ngir yow loolu nu muy demee yonent bi bi nga ko waxee yonent bi daal di muñ ne ko balit dam ad dama dam wal hadmal hadmu ana minkum wa antum minni maanaam man ci yéen la bokk yéen waa Madina yéen ci man ngeen bokk na seen xel dal ñoom ñëpp ñu daal di tàllaat xam nga yonent bi loolu mosu ko wax kenn man ci yow laa bokk loolu leen wax am na beneen feneen foo xam sax ca mujj ga ca Xunayn yéen daf da leen wax ne nit ñëpp buñu maase woon jaar ci mbedd mi waa Ansaar yéen waa Madina ngeen jaar fii seen seenu yoon lay jël ñu daal di bëgg nag nekkoon nag fi ne moom insha allah moom jekk nañ am na sax koo xam ne ci ñoom si saase doo ko wax ne ko bu la neexee ñu song waa Makka léegi ak suñ xeex xeej yi ñu wax yéen tamit ne ko loolu jotagul jotagul xaar leen moom ba am ci bañ am digal léegi nag bi loolu amee teewutit am na ñaar ci ñoo xam ni ñoo njëkkoon a jëbbalu ca at ya jiitu woon kenn ki mooy kenn ki mooy al abbas ibnu ibnu ubadata ibnu nadla keneen ki mooy asxab ibnu zurara ñoom ñaar ñi kenn ku ne daa jël kaddu ngir bëgg a firndeel maanaam jëba gi day bañ gaañee rek toog gi ñu toog yonte bi ñu bëgg ba wax fi loo xam ne dañ cey gënaat ginnaaw ba moo tax ñoom ñaar ku ne kenn ku ne jël ci ñoom kaddu ki njëkk a wax mooy al abbas abbas ibnu ibadata moo wax ne gaañi seetlu leen baax li ngeen def kii ngeen nar a fàtte lim leen di jural mooy ngeen tàmbalee xeex boo xam ne xamu leen fu muy yem te adduna sëpp ngeen di xeexal ñaareel bi itam su fekkee ne da ngeen a nar a dem bu seeni alal jeexee seen waa dëkk ba kilifa yi ñu faat leen ngeen génne ko maanaam génn ci li ngeen nekkoon li ngeen jaayante woon wax leen ko ci teel keneen jug ku ñu wax Asad ibnu Zurara ñaar ñi suñu ëpp sosié maanaam suñu njëkkoon jëbu leen waaye dañoo bëgg gaañi xam bu baax li li ñu def nii Asad ibnu Zurara jug moom it daan leen yéen waa Yasrib mooy Madina yéen waa Madina nun de kii dañ ko gëm ndax day yónnente boo xam ne yàlla ko yónni man gëm naa ko wër sama xol waaye nag bu leen sikk ne tey bu génnee dëkkam bi ñëw Madina loola li muy signifié li muy tekki mooy giiri arab yépp danañ daal dog suñu diggante ak ñoom maanaam ñi ñu dendal dëkk yi ñu dendal ñépp danañu bàyyi léegi nag su ngeen su leen wóoree ne jekk ngeen ngir bàyyanteeg arab yépp ngir jàpp Seydina Muhammad mii te loolu du ngeen ci ragal dara ngeen ngeen wéyal jaayante gi su loolu nag ngeen seetaat li ngeen def bi loolu amee ñoom ñëpp ñu maase ne ko dañ ko dog sax moom as moom asaad dañ ko dog ne ko suñ alal yëpp na na jax waa dëkk ba nun ñëpp nañ maase faat waaye lii nu jaayante dootu ñu gënal xalaatuñ ko xas nañ joxe suñu bopp jekk na na dëkk ba nun ñëpp nañ faat alal yëpp dina jeex waaye incha allah duñ ci dellu ginnaaw waaw yonente bi ne leen incha allahu loolu yàlla dana leen ci defal yéen ñëpp ku ci faatu rek mu tàbbal la àjjana maanaam parce que bi ngeen amee nii ku ci faatu rek àjjana nga jëm léegi ci lañ daan nag tàmbali kenn ku ne jox ko loxo jaayanteeg moom ba juróom-ñaar fukk yëpp mat yonente bi wutal leen ay jëwriñ fukki jëwriñ ak ñaar yoo xam ni juróom-ñeent yi ci xasara ji la ko la ko la ko jële juróom-ñett yi ci def mu jële ko ci awf ñaari giir la ñoon ñi mu jële ci xasara ji mooy asad ibnu zurarat ibnu adas ak saad ibnu rabi abdullah ibnu rawaha rafi ibnu malik albara ibnu mahrur abdullah ibnu amr ibnu haram ubadatu ibnu samit saad ibnu ubadata ak almunzir ibnu amr ñooñu ay xasara ci waa xasara lañ bokk mu def leen ay jëwriñ ñeneen ñett ñi mooy usayid ak saad ibnu xusaymata ak rafaa rifaa juróom fukk ak ñaar ñi la tànn leen yéen kat yéen ay jëwriñ ñi nga xam ne yéen a responsable mboolem ñi ci des maanaam yéen lii ma jaayante gaañ yéen a koy sàmm lu ci xew ngeen ngeen wax ngeen waxante koog man ngeen jëfante koog man maanaam yéen sa ni ma leen di misaale mi ngi mel ne maanaam ñi te xawaari yu na ci xawaari xawaari yu na ci ci Seydina Isa ñoom ngeen mel ci seen biir mooy yéen laa teg yéen laa doxale sama diggante ak mbooloom ko ñaar yi loolu mënees na ci tegtalu dayri yi ñu def jëwri yi ñu ko wutal nga xam ne tey masal kilifa yi man seebu xudoos ci misaal nga xam ne boo ko masaa jébal ci moom dana xam ne dëkk ba ña nga fa nekkal ba dee nga ànd ak ñoom ngeen def ngeen def ab dayri kilifa yëpp noonu lañu def loolu mooy mooy mooy lii rek mi ngoog fi saasa rek yàlla dogal nag seytaane ba kenn seytaane yi benn kàddu rek koo xam ne si kàddu jinne seytaane la seytaane soo xam ne daa yuuxu ca dëkk ba xam nga jinne yi jamono yi dañ ko daa def lu bari bari yéen te ba muy gàddaay gis nga am na jinne joo xam ne moo leen ko xamal jinne ji moo leen xamal ne ma nga ci yoon madina mooy ne jazallahu rabbul arshi xayra jazaihi rafiqayni xalla xaymatay ummi mabadi mabadi maanaam bayit yooyu la la la nekk ci guddi gi di ko wax kenn gisu ko mu mu koy wax ca kaw ñoo xam ne kon ginnaaw ummu mabadi ma nga ci yoonu madina kon fa la yoon te bi jël guddi gi itam bi lii amee itam dafa am kenn ci seetaan yooyu koo xam ne daa daa yooxul fa ca kaw wax ne yéen waa dëkk bi daaw leen jóg Muhammad am nay gaay yu ñuy waxtaanal te ci song si leen la jëm daaw leen jóg yéen ñëpp mi ngoog yonente bi daan ne kooku ma daa daa daa di koy móolu moom jinne moom jinne yooyu wala seetaan soog daal ne ko yow dinaa dinaa jëflante yow la atafarraxan na lak yaa adu wallahi la atafarraxan na lak ñi daa tas nag ndaje mi kenn ku ne def fa nga fa fa nga fa nga daroon bi loolu amee nag waa Makka bañ xëy suba lañ lañ daa fekk dégg nañ kàddu ko ca ca ca guddi ñu daal di tàmbali nag di di gëstu mbir moom bëgg su fekkee wér na waa Madina bala ñoo génn ñu gaaw ñoom faat leen ndax daal ginnaaw ñoom ñu ngi lëkkatoo Seydina moom ngir bëgg di xeex xeex si waat ñu ne léegi nañ nañ nañ ñu gëstu mbir moom bañ gëstoo ba ñëw toog ak waa Madina ne leen yéen kat suñuy man arab yëpp yéen lañ ci gën a suñ digg ak yéen moo gën a ratax ci suñ digg ak arab yi ci def yëpp bëgg nu woon dara dox suñ diggante waaye nag dégg nañ ne bii da ngeen a dajeek Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom jaayante ak moom ci jekk ngir xeex ak noonu fekk booba ba mu ba mu koy wax maanaam yéefar yi jóge woon Madina nga xam ne jotuñoo tuub ñoom yëguñu ndaje mi xam nga ñoom ñëpp ñoo maasé ne ko loolu amut di nun ñëpp fanaan si fii lan tëdd kenn demul fenn ndaje moom amut Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ne ko ah man de xam nga ne fa ma dëkk ca Madina nit du fa def lu ma yëgul complot bu toll noonu bu amul naa ko yëg kon amut jullit ñi nag ñu ngi ci jataay bi waaye dañ ne can saxaluñ wedduwuñ waa Makka am xel mu dal jàpp ne loolu dégg nga am kon wérut ñu daal di ñibbi ba ñibbee gaa ñi ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy dellu ñoom waa Madina ñi gaaw la takk seen bagage di ñibbi ba ñu ñibbi bay génn dëkk ba ci la waa Makka doo nga xam ne kat lañ leen waxoon lépp wér na ñu tàmm bëgg leen a topp di leen wër waaye gis ñu leen ñaar lañ ci jàpp kenn kër ka ca des it moom it ñu tàmbali ko dóor sonal ko am ñu ko aar ci waa waa waa waa waa Makka foofee nag la yonente bi wax jullit ñëpp ne leen ku ci bëgg a gàddaay mën ngaa dem Madina léegi foofa la yàlla def nu war faa dem gàddaay ji